kon mbokk yi ñu ngi war a jël tey aya 43 aya 43 ci suuratul hijr suuratu ibrahim suuratu ibrahim aya 43 te suñu borom di waxee ne muhtiina muqni'i ru'usihim alhamdulillahi rabbil alamin وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين mbokk yi ñu ngi wéy di santaat suñu boroom subhanahu wa taala mi ñu wërsëgal ñuy dund li nga xam ne mooy weeru koor ca ñëw ca la nga xam ne mooy bis ya nga xam ne ñoo ci mujj falilahi alhamd ñu ngi koy santit bi mu ñu ci dollile ñu bàyyi suñuy ittee ñëw daje ci néegam fas yéene jàng ak téeram yooyu yëpp di ay ngëneel ñu ngi ñaan yàlla na yàlla boole ñu nangul yëpp kon incha allah ñu bàyyi ak Cheikh Ousmane أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
مطيعين مطيعين رؤوسهم لا يرتد الذين ضربهم وأفئدتهم
suñu boroom subhanahu wa taala mu ne yéeféer yi day du ñu dekkee yowmal qiyaama muhtiin ña ngay ñukk mooy la nekk ci diggante waaxu ak daw muqni i ruusihim aj seen bopp ya tiin laa yartaddu ilayhim tarfuhum du dellu ci ñoom seen seen xef ya wa afidatuhum hawa seen xol ya doon xol yu vide yu dara nekkatul wa anzir nnaasa yowma yati yowma yati fihim al azab waaral nit ñi ci bis ba mu leen di dikkal mbugal ma fa yaqulu alladina zalamu noonu lay waxe ña nga xam ne dañoo tooñ rabbana axirna ila ajalin qarib ay yàlla yéexeñu ba ci dig boo xam ne bu jege lay doon nujib daawatak yëree ñu wuy si sa woote wa nattabiu rusul daal di topp yonent ya awalam takunu aqsamtu min qablu suñu borom mu ne waaw xanaa nikku leen woon di waat di giñ lu jiitu maa lakum min zawal la yéen day du leen ñeel benn ko wàcc bu ngeen di wàcc si di dellu si ci ñun wa sakantum fi masakini alladina zalamu anfusahum te yéen a ngi dëkkee ci dëkkaayu ñi nga xam ne dañoo tooñoon seen bopp wa tabayyana lakum kayfa faalna bihim te leeral lañ leen ñeel leen naka la ñu defee ak ñoom wa darabna lakum al absal te dóor nañu ñeel leen mi ngi noonu bépp misaal mi ngi noonu mbokk biñ mujjee daje fii démb suñu boroom day wax ak jullit ñi ci ne ngallaawaay bu mu leen jaaxal yéeféer yi ak seenu kéeféer yéeféer yi ak seen tooñ gudul jeex ba pare suñu borom yàlla di continuer di yokk seeni xéewal mbokk borom bi mu ne da leen di yéex ci bis ngi ñëw boo xam ne tashxasu fiihi al absaar bët yépp dana buqeeku te mooy ab yéeféer bu dekkee bisu penc ba gis ñàngaay yi bisu penc yàlla dajale ne lum ma si bind nit ña yàlla xam des milliers de milliards jinne ya malaaka ya mboole mi bàyyu ma mu ngi safara loolee seen bëdee day buqeeku gannaaw ba suñu borom sant aji woote mu woote fa yàlla di dajale ay jaamam ci àdduna biñ déggee woote bi yàlla faalewuñ ko amma àllaaxira bu ñu déggee woote bi yàlla dañuy daw wujji aji woote ja te yéen seen bopp duñu xool sax fu ñuy jaar lu tax ngiree xam ne ñàkkoon a wuy si yàlla moo leen nar a dugal ci alkaange bu rëy ji ñu jëm borom bi nag nee ne tiitaange ba dana yàgg ba duñ mën a xefeti te loolu mbokk lu ñuy gis la ci àdduna ay nit yoo xam ne tiit nañu ak tiit dem nañ ci àll dajeeg gaynde wala ñu fekk ay bombardement dañuy xulli seen bët rek duñ ko mën a xefeti te loolu mooy tiitaange àdduna waxuma àllaxira gis suñu borom bi it na hawa na am mbokk julit xatta ci àdduna am na ay choc yoo xam ne boo ci jaaree tiitaange yoo xam ne boo ci jaaree da ngay dem ba dootoo xamati dara dootoo xamati dara mi ngi noonu ku la ne noo tudd sax doo ko xam ndax tiitaange bi day yóbbu sa xel complètement loolu nag mbokk ci àdduna la ana nag tiitaange àllaxira mbokk loolu lañ ci jëkke dégge mooy ñu góorgóorlu jéem a topp wootekatub yàlla ñu ngi noonu loolu la yonent yi waxoon yaa loolu la jinne yi waxoon seen mbokk ya yaa qawma ajibu daai allah woo wuy si leen woote bi yàlla wootekatub yàlla ba daai allah kay woote ci ndigalu yàlla doonte ne yéen Sénégal miin ngeen ajibu yéen tamit daai allah waaye mbokk ajibu la ca suñu borom tax daai allah mooy kay woote ci ndigalu yàlla waxul ñay woote jëme ci seeni shirk ak seeni bida ak seeni xuraafaat seeni yonent yem sos abadan kon gàllawaay ci àdduna jullit nii nga war a déggale yàlla yéeféer yi yowmal qiyaama ñu nga teen xalaatuñu yewit julit mi ngi noonu sa borom yàlla lu mu digle na ko imam shafii doon waxe rek la fa bil ayn wa ras da ngay rek unhu rek nga cee mën a teg bu ca teg la lim lu dul loolu yonent yàlla digle naka noonu keneen ku dul yàlla ak yonent yàlla nag bu digle moom mën ngaa seet jeex na borom bi ne ne ay nit ñi yow yonent bi xuppal nit ñi waar leen ci bis boo xam ne nii mi ngi ñëw ci suñu kanam benn sikk amu ci bi këroogee ñi nga xam ne dañoo tooñoon te mooy ñan bokkaalekat yi nga xam ne dañu leen bokkaale seen boroom lu ñu wax yàlla ay yàlla yéexe ñu ba ci digg bu tuuti rek ñu wuy si sa aji woote ji topp la yeneen yi doon wax ci loolu mbokk dana am yéeféer fi muy faatoo mi noonu xatta ida jaa ahadahum al mawt qala rabbi irji'un mi ngi nii laalli amalu salihan fi ma tarat suñu borom nee na say-say buy dee bu malaaka yi ñëwee ba commencé fudd ndiggi leeg seeni bolde dana ne ay yàlla nañ ma delloo tuuti rek ngir ma def lu baax mi ngi noonu rabbi lawla axartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akun min asalihin ay yàlla ndax dooma yéexe ba ci dikk bu tuuti rek kon day danaa génn sarax yu rëy danaa bokk ci gaa yu baax yi kon mbokk bokk loolu yéeféer di rëccu ëllëg yowm alqiyaama mooy natte bi rusul topp yonenti yàlla ya duñu rëccu mukk ndax topp ñu sëñ caam wala topp ñu sëñ mbeng wala sëñ sekk ku mën a doon abadan li waay di rëccu ëllëg mooy lu teewoon mu topp yonente yàlla ba yàlla wax ñu ko ci aay yu bëri yaa laytana ataana allah wa ataana rasula suñu borom nee na yéefiri dañ matt seen loxo ci biir safara daal di ne ay way ak a neexoon ne toppoon yàlla toppoon ndigalu yonente ba mi ngi noonu gannaaw ba nag la ñuy wax ne rabbana inna ataana saadatana wa kubaraana fa adalluna sabila yàlla li ñuy yóbbali lépp mooy dañoo toppoon suñu kilifay diine ya ak suñu kilifay adduna ya jàpp ne dañuy jubal ndekkate yoo te dañoo teggiloo yoon wa teggiloo yoonu yoonu sunna waaye yàlla aatihim diafayni min al azab loo ñu mbugal rek mbugal leen duubal mbugal ndax li lépp ñu ñu ko yóbbee waaye ngal la way yow borom xel xamal ne boo duggee bàmmeel kenn du la laaj imam Hassan Sarr imam Bamba Diop Serigne Mbacke Ndiaye kum mën a doon ci kaw suuf kenn du la ko laaj abadan ki ñu lay laaj mooy yenenti yàlla bi kooku rek lañ lay laaj kenn du la laaj leen dudd lool sa borom sa yenenti sa diine abadan looloo tax ay yàlla boo ñu xaare woon ñu ne dañuy ñu topp la nga xam ne mooy say ndigal suñu borom daal di leen ne waaw diina doon waat gën jaa sar di waat wa aqsamu billahi jahda aymanihim laa yabasu llahu man yamut di ba ngeen nekk ci àdduna yéen a doon waat gën a tar ci waat ne yàlla du du dekkal kenn maa lakum min zawal mi ngi noonu loolee gis ngeen jant bi buy fenk day yéeg di yéeg ba ci digg asamaan mu commencé wàcc wàcc si ba suuxaat loolu bu yéegee bay commencé wàcc da ngeen tuddee zawal jot na tisbar jot na jàppoon ngeen ne du ngeen dellu si mu ne waaw mi ngi noonu amma julit moom fu mën a toll mi ngi fàttali boppam inna lillahi wa inna ilayhi rajiun jurit moom day yit ne mindaa sunu yàlla la bu yàlla tànn indi ci kaw suuf ca heure bu neexee yàlla yàlla delloo wat ko ca moom loole la jurit moom di gëm suñu borom mu ne yéen a ngi dëkkee ci dëkkuwaay ñi nga xam ne ñoo fi nekkoon tooñ seen bopp ca fama jaarat yi ñoom xam ngeen ko mooy xeetu nuux huut saalix ak ñeneen ak ñeneen yéen a ngi dëkk suñu dëkkuwaay ca mbokkit tey jii yow mi dëkk ndakaaru masalan da ngay jóg ñu ne la yaa ngi jaar avenue El Hadj El Hadj Malick yaa ngi jaar avenue Limamou Laye Cheikh Anta Diop Gambetta Jules Ferry Vincent Galandou Diouf Lamine Gueye mën na xam ngeen ne ñun ñëpp ay nit lañu woon yoo xam ne ñi ngi nekkoon fii ci kaw suuf bu ñu xëyul Sénégal du du baax yor lépp waaye suñu borom buub na leen ñoom ñëpp ñëpp ñëpp dugal ci biir suuf est ce que yow jàpp nga ne am nga kattane ki daraja ba ñooñu lan leen yóbbu dana la fi bàyyi abadan du la fi bàyyi loolee mbokk mi ngi noonu moo tax rasul sallallahu alayhi wasallam daan ñuy wax naan day leen ziyaare ji bàmmeel yi ndax ziyaara bàmmeel dana la fàttali de guddaloo na àdduna ku dem armée li yoo fii yaa ngi fa fekk président Ayib Diop mi ngi foofu ay premier ministre Habib Thiam mi ngi foofu la fa nekk ci ay cour président cour suprême ñoom Keba Mbaye ak ñoom ñëpp ñi ngi foofu la fa nekk ci ay magistrat ki avocat ki milliardaire ñoom Bourgier Farès yi nga xam ne immeuble yi mag yi ngi gis Dakar yëpp ñi ngi foofu tëdd waaw la leen yóbbu ndax dan la fi bàyyi abadan du la fi bàyyi ñu ngi doon ñoom yàlla yàlla yërëm leen te bis bu ñu demee ñun yàlla yërëm ñu waaye loolu la xel di jëriñ mbokk nga xam ni foo dëkkee rek am na ñu la ko jiitu woon tey jii boo daje woon ak magum lépp dana la wax sunu jàkke ji ci toolu bàyyi kan la nekkoon mi nga noonu toolu bàyyi kan la nekkoon am na benn góor bu doon wax naan fii ay tool la woon mu ne 26 gi gis nga fii jumaa 26 bi rek jumaa bi nekk fii ci 25 bi nee na fii diig bu rëy la woon nag yi yëpp mosaan ñëw fa la ñu doon naane ci loolu ñu ngi noonu bàyyi jiw moom ko moomoon am na ko ko moomoon tey jii ñun ñu ngi fii ñu naan bi may kër sëñ caame ngay kër sëñ sekk kër nangam fii un siècle naka lay demee loolee kon mbokk mbir la yoo xam ne jul da ci war a bàyyi xel borom bi nag moo tax mu ne misaal bu ne dóoralal naa leen ko yéen borom xel yi mi ngi noonu Cheikh Ousmane
تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر وليذكر أولو الألباب
barakallahu fikum suñu borom mu ni waqad makaru makarahum ñoom day fexe nañ seen fexe ba wa inda allahi makruhum waaye ca yàlla day la nekk seen fexe wa in kaana makruhum li tazuula minhu aljibaal doonte ne nekkoon na seen fexe ya mu cay teggeeku di dem li nga xam ne mooy montagne ya فلا تحسبن الله مخلف وعده رسلا بول جاب مك ني يالا دا ووتيك اي ديغام اك يوننتام ان الله عزيز ذو انتقام يالا داي موي العزيز موي كي نوت ليپ سي كابتنام واي ييت موي برومي مبوغل ذو انتقام برومي فايو تي نيو مو فايو تي نيوم يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات bis bi nga xam ne dañu soppi suuf leneen lu dul suuf soppi it asamaan yi wa barazu lillahi wahid alqahar lillahi alwahid alqahar ñu sang leen feeñal leen taxawal leen ñeel yàlla mi nga xam ne kenn rek la ki not lu mu mën a doon alqahar wa tara almujrimina yawma idin muqarranina fi alasfar nga gis la nga xam ne mooy say say si al mujrim mooy def ko te bakkaar bu dëgër bopp bi ñu ngi leen lënkale chaine leen boole leen chaine fil asfaat ca njom yañ mooy yañ takke seen loxo ya ak seen tànk ya sarabiluhu min qatiran mbubb ya nga xam ne moom la ñuy sol mooy goudron bu ñu taal wa taxsha wujuhuhum naar mu daal di yiir muur seen kanam ya yi di safara li yajzi allahu kulla nafsin ma kasabat ngir yàlla fay bépp bakkan la mu faggu inna allaha sari'ul xisaab yàlla day ko gaaw la ci ni muy xisaabe ay jaamam ca bu dee ña yooyoo mbugal ko gaaw la ca na mi leen di mbugale hada balaagun linnaas lii de ak jottali la ñeel nit ñi wal yunzaru bihi ngir ñu xuppe leen ci waare leen ci wal yaalamu annama huwa ilahun waxid ngir nit ñi xam ne yàlla day yàlla benn dong la وليذكر أولو الألباب منك دي فاتلكو نيغا خمنا موي بروم خيل يو مات يا نيغي نونو مكو سيني بروم داي واخ ني ييفيري دوني دنج دي فخه سي كاو سوف فخه بو ني دنج كو ديس غير فاي ديني يالا جي waye suñu borom mu ne nañu xam ni seeni fexe yépp ma ngay dellu ci yàlla mbokk doomu aadama yàlla may na ko mu pexe ñee ña ngay fexe ci wàllu njabar ñee ña ngay fexe ci piège ñuy def ba jël sa alal ñee ña ngay fexe ci service ba pour ñu dàq la ay pexe doomu aadama bari na waaye suñu borom mu ne pexe yépp ci yàlla lay dellu loolu muy wone ni kenn mënul fexeel doomu aadama ba jàpp ko lu dul ci digalu yàlla njabar lu am la suñu borom moo ko wax waaye borom bi ne na wa ma hum bi daarina bihi min ahadin illa bi iznillah waa makkaa ngi di fexe nu ñuy def ak yonent yàlla bi suñu borom mu ne makru wa makra allah wallahu xayrul makirin daje nañ fexe ni nañ dëppoo léegi nañ ko rey waaye yàlla daal di koy génne loolu it yow nga la julit bul dem mukk ci li ñii ñii def takk ndigg li ba mu fees takk loxo ba mu fees waaye lii nag mooy bañ ko ma def lu bon ñoom noonu lañ ko jàpp bañ ko ma jabar bañ ko ma kasaab mbokk loolu ay coono rek la loolu ay shirk rek la amul ku la mën a lor lu dul ci ndigal yàlla kon wékkul ci yàlla rek mu doy la sëkk na la qul huwa allahu ahad qul anzur bil falaq qul anzur bin nas doy sëkk yow julit ci lépp luy diwoo ko takka ko suuroo ko kaza wa kaza mooy li ñu pexey kaw suuf ci yàlla lay dellu dara du ci sotti lu dul neex yàlla abadan loolu la julit war a gëm boo ko gëmee rek da ngay daal di noppalu suñu borom yàlla mu ne même seen pexe yi bu yóbboon ba mën a déplacer montagne yi it xamal ne yàlla li mu digge woon dana ko def donte ne mbokk tey jii xëy na montagne yu mag yaa mag xalaatuñ ko mais ana ñaata montagne tey la doomu aadama déplacé bëtt ko wala man ay arabi saudi yooyu day gis ay montagne yu ñuy bëtt lu jege un kilomètre ci def ko ay canal yu dul jeex kon doomu aadama ay pexe yu rëy na waaye suñu borom mën a xam leen ne lu seen pexe pexe rëy rëy rëy du tax yàlla moom li mu digge dañ ñoom ñëpp dana leen rey dana leen dekkal dana leen atte dana leen jox seen fay mi ngi noonu yàlla du wuute ay dig yim dig ay yeneen tam te xam leen ni yàlla mooy al aziz mooy ki nat lépp te it jaam bi mu jox xel jox koy xéewal mu lank bañ ko jaam yàlla mu ne dana fayu ci moom zuntiqaam dana fayu ci moom te fayu yàlla ga mbokk mooy safara borom bi wax ni bis buy ñëw boo xam ne dana soppi suuf nu bokkul ak suuf bi ñu xam ndax soppi ba day changé indi beneen suuf wala lam ci jublu mooy lim ñuy wax ci téere bu tedd bi mooy suuf bi da koy changé masalan yasalunaka anil jibal qul yansifuha rabbi nasfa fa yadruha qa fa yadruha qaan sastafa la tara fiha wajan wala amta mooy montagne yi dana explosé doon poussière fatt xur yi suuf talli ñeret doo gis xur doo gis dara loolu ndax foofu la yàlla di attee jaamam la chaque ne yàlla moom suuf bii la ñuy génnee mooy minha xalaqnaakum wa fiha nuidukum wa minha nuxrijukum taratan oxra ñu ñëpp ñuy dekk ci suuf bi la ñuy dekkee comme ñuy attee nag ndax ci même suuf bi la wala day indi beneen suuf loolee moom am na ay ixtilaaf rawatina ay xadis yi wane ne ci beneen suuf la ñuy attee almuhim li am daal moo dina ne suñu borom nee na bisa ngi ñëw suuf soppeeku lu tax mooy wa xumilat al ard wal jibal fa dukkata dakkatan waxida suuf ngi nekk géej na ki àll na ki ay montagne na mais bis dina ñëw lépp poussière lay doon lépp poussière lay doon garab amatul montagne amatul dara amatul lépp poussière lay doon borom bi nag subhanahu wa taala asamaan it naka noonu isa shamsu kuwirat isa nujumun kadarat isa samaanu fatarat isa samaanu shaqat mooy yàlla dana tasaare asamaan tasaare biddiw yi lem yépp kon ba du nekkati asamaan bi nit ñi nii noonu cala nag yàlla di génne jaam yi barazo mbokk yowmal qiyaama mooy bis bi nit ñi taxaw ci kanamu borom bi leen jàtte bis la boo xam ne juróom fukki junni at lay diire ñeel yi séer yi juróom fukki junni at gaa yi nit ki bu amee téeméeri at ci kaw suuf ñu ne yàgg na fi téeméeri at ku ko am ci ñun rek ñu ne yàgg na fi lool amma taxawaay bis penc juróom fukki junni at lay diire ci yéeféer yi avant ñuy dem safara amma bu dee jullita suñu borom moo ko koy yombalal moo tax suñu borom mu ne alal kaafirina xayru yasir yéeféer yi kenn du ko yombal ñoom cinquante mille ans lañu taxaw jullit ji rek doo ko ñëw am na jullit ñi koy taxaw duré dix ans cent ans un an un mois vingt quatre heures yonent bi alei salatu wasalaam ne ña yàlla yombalal yombal day mel ne diggante tisbaar ak takkusaan mboolem xisaab yowmal qiyaama noonu lay guddi ci ñoom yàlla yàlla boole ñu ci mi nga noonu waaye kon noonu la nit ñi taxawee barazu lillah ñëpp taxaw bu keroogee suñu borom dana laaj ay laaj ca mooy li manil mulkul yow bokk bu ñuy génn yonent nit ku baax ku baaxul ñëpp a yom nañu suñu ndey jure woon la ñuy génn yomal xiyam ñun ñëpp jar mu neen ñu ngi noonu suñu yaay Aïcha ne yonent yàlla bi góor ak jigéen yar mu neen mu ne ko xëy Aïcha mbir ma gën laa njàng ngay xalaat di naan ndax kii góor la kii jigéen la yaa ngi dégg mbokk li ñuy foog fii fii la yem de waaw jàpp na suñu saataan boo ko yaakaaree moom mi ngi taxaw rek allah xëy ku ne pël ci bàmmeel mu ne kaay kii saa waay la kaay dajale ñëpp loolu rek yàlla ñii sama kotaan la mbokk loolu suñu xalaat la rek waaye ëllëg ku nekk sa bopp ngay tal ku nekk sa bopp ngay tal ñun ñëpp ñu génn ci kanamu borom bi tuhsharuuna yawma alqiyaama mi ngi noon xufaatan xuraatan xurula yeneen bi alei nee na dall amul yére amul lañ la ma sa jongol sax day dellu siwaat ci yow ñun ñëpp nag laa la wax ba bàyyi yàlla di commencé nag attay jaamam ñeeye yoo wodd mu wodd leen yonente bi alayhi salaam ci teddaangeen nee na ki yàlla jëkk a wodd muy suñu bay ibrahim gannaaw ba malaaka yi jële sama kodday ci àjjana jox ma manit gannaaw ba ñu wodd jullit ñi wodd wodd ña yeyoo ñu wodd yàlla ñu yàlla wodd yowmal qiyaama kon barahu lillah des na leen sang ñel yàlla yàlla moomu ñaar laam ñetti déedéet al waxid kenn kese moo yor décision yépp lépp dogal mooy dogal luy atte mooy atte mooy alqahaar ki not mboolemi mbindaa fanam jalla wa ala suñu borom nee na bu keroogee dana boole buuru say-say yi mi ngi noonu ñoom Namruus ñoom Firawna ak ku nar a yéene safara ànd ak ñoom dana boole généraux say-say boole njaalookat say-say yi agresseur say-say yi ku nekkal ka nga mingool jëf ju bon yàlla dina la méngóole ak moom mi ngi noonu comme nañuy boolee gaa yu baax yi def leen ay groupe mooy al muqarrabin ak asxaabul yamin ñu leen di teral amma say say si ñoom ña nga njoñ seen tànk ya njoñ seen loxo ya fa yuqazu bin nawaati wal aqdaam njoñ leen bañ dëgër boole leen boole leen ci ay chaîne encore suñu borom leen la leen di solal yére wax naa la sànq ne waa àjjana dañ leen solal ay yére te ñuy jëkk solal mooy ibrahim ndax ibrahima dafa gëm suñu yonent déedéet waaye ibrahim mooy baayam te xam ngeen yéen yàlla nañ koy yàlla buñ ko yàlla nattoo képp ci yéen ko àndoon ak baayam dafa yara mu neen yére ba nga jëkk a def sa bàyyi nga koy jox am déet loolu mooy teraangeen ci amma yéesar yi dañ leen solal luñ leen di solal malaaka yi dañuy dem udd ay ay mbubb godoron nga xam ngeen godoron bi ñuy def ci gannaaw bâtiment yi loolu mooy godoron bu bu la sa cobaay yóbbu mukk ba nga gis goudron bu ñuy baxal nga ñëw di ci dugal sa loxo mbokk li gën a tàng ci li nga xam bokk na ci goudron bu ruy loolu ñu utal ñu ci ay mbubb ba pare nag taal ko goudron bi di takk seen kaw suñu borom subhanahu wa taala nee na safara ba di takk ci seen kanam ya mi ngi noonu doomu aadama li mu gën a fonk mooy kanamam li mu gën a bëgg musal bu xeer doon ñu sa kanam ngay protéger waaye nee na kanam ya ñooy takk mi ngi noonu borom bi subhanahu wa taala ni ngiree bépp bakkan mu fay ko la mu faggu woon kenn du la fay la keneen faggu ku nekk la nga faggu woon lañ lay fay suñu borom nag mu ne ko gaaw na ci ni ñuy xisaabe ay jaamam ndax benn question mën a traverser sa bopp waaw buñ nee àllaaxira la fay daje dana mat mille milliards ñooñu nuñ leen di àttee mbokk suñu borom atte benn jaamam ak atte mille milliards la yemale ci képp wa ma amru saati illa ka lamxil basar aw huwa aqrab suñu borom dara du ko yitteel ci dara yi ngi noonu suñu borom dara du ko yitteel ci dara loolu moo tax ba taxawee benn jaamam ak taxawee mille milliards de jaam moo yem ci moom jalla wa ala yi ngi noonu borom boobu nag tëjee saar bi aaya boo xam ne lu bari ci borom xam-xam bi dañ naan alxuraan boo amoon titre mooy titre léeg-léeg boo gisee lii liñ bind ci kaw mooy titre bi nangam titre bi aaya bii la waroon a doon aaya bi mooy lan mooy haza balaagun linnaas lii day ay xabaar la yu ñu jox nit ñi mbokk doomu aadama yi am na ñoo xam ne bu ñu xëyee te liiruñu journal dégluwuñu rajo la ñuy feebar ndax il faut ñu xam ay xabaar yi xew nañu xam nag mbokk xabaar bi wér xabaar bi sax xabaar bi nga xam ne xabaar dootul ñëw gannaawam yal na yàlla yërëm suñu mbokk bi laa ji Fajir Gueye moo daan wax la dernière nouvelle l'ultime dernière nouvelle alquran yi ngi nii tey jii da nga gis journal yi journal bi tey mën na jar deux cent francs mais bu subaa ba beneen journal génn bu dénd bi dootul del sax fukki dërëm ndax am na yeneen xabaar yu bees dañu xam nag mbokk xabaar bi mujj mooy bii yàlla joxoon na yeneen ci yàlla nuux ay xabaar huut saalix yeneen ci di tegaloo ku ñëw di indi xabaar di indi xabaar ba ba xabaar bi mujj mbokk muy alquran boo xam ne yàlla nga ko adressé tout le monde yi nga noonu tey jii rajo yu nekk Sénégal dañuy wax pour les sénégalais da leen gis rajo ñu naan rajo international pour pour adduna bi ila xiri amma kii it yàlla da koo def ngir nit ñi ñëpp li nga noonu yeneen ci jiitu woon dañ leen doon yónni seen xeet Moussa ila qawmi Isa Nuux ila qawmi ñoom ñëpp seen xeet amma suñu yeneen ci yàlla da ko yónni ila kaafatan li noos kon alquran ngi nii pour les africains les américains les asiatiques ñiy dund en sunu année bi ñiy dund en deux mille cinquante ila axiri balaaxan lin balaaxun lin noos waaw léegi nag bu balaax bi ñëwee lettre boobu ñëw pour lan la suñu borom mu ne wali yunzaru bi ñu xuppe leen ci waar leen ci moo ko alquran inzaar la waaw yonent bi alei salatu wasalaam suñu borom mu nekk naan salnaaka shahidan wa mubashiran wa nazira mooy xupp nit ñi yoon bi ngeen jaar baaxut hey hey fi nga jaar baaxut ñu nga noonu ñu ngi gis yaa ngi gis mu ngi jaar yoon bi jëm ci ay kanaan eh xupp boobu nga koy xupp ay yéen kaay leen dellu siwaat bàyyi leen shirk bàyyi leen bokkaale bàyyi leen bidaay yi ñu xupp leen ci alxuraan ji daa ñëw ngir xamal nit ñi ne yàlla kenn la looloo tax yonent bi alei salaam nee na ceeru alxuraan loolu lay jàngale moo tax mu ne qul huwa allahu ahad dana représenté ceeru alquran ndax mbokk alquran la ëpp lu mu lay wax mooy xamal ne la yàlla kenn la annama huwa ilahun wahid waaye nag feeba lan moo ciy mujje suñu borom mu ne mu fàttali ko borom xel yi mbokk borom xel ñooy jëfandikoo alquran kan mooy borom xel ndax mooy architecte bi kooku c'est une simple formation rek la nit ki da ngay formé nekk architecte ingénieur nekk lu mën a doon ay formation la mais borom xel dëgg mooy ki nga xam ne mooy xalaat démbam tayam ëllëgam xam ne man jaamu yàlla laa lu mu yàgg yàgg damay dee su ma dee fan laa jëm lan mooy tax ma texe ëllëg lan moom mooy texe alko ku mel noonu day bu dajeeg alquran dana ci gis réponse ci question yooyu yëpp ci ak bëri ay tubaab yoo xam ne nii dañuy duggee ci lislaam liñ leen buñ leen laajee dañuy jëkk a wax dafa am yàgg am ay question yu koy troublé yàlla dafa def question yooyu yëpp bi jàngee alquran dañoo gis réponse ba mu leer nañ ci ñoom ñu ngi noonu amma ñooñu nag mbokk mooy borom xel yu mat yi mën na am mooy baykat ba nekk fële ca Kédougou ca toolam mën na am nappkat ba nekk ca dex ga fële ca gaalam donte ne mën na nekk scientifique ba nekk fële ca NASA mooy ñi yàlla ubbi seen xel ñoo xam ne adduna bi dañ fee jaar ci am na fu mu jëm ñooñu ñooy ulul albaab ñooñu rek ñuy jëriñu alquran yàlla na yàlla boole ñu ca mbokk jërit loolu mooy jeexatul suratu ibrahim kon incha allah ñu jël suratul hijr